li ñuy dépensé fii ci pale bi d'ailleurs palais bi sax dama ko bëgg a tëj man. tëj palais bi. waaw. c'est-à-dire. bi ñu am bopp ngeen lu muy jëriñ. palais bi suñ gouverneur yi su leen doon toog du toroxal suñu maam yi man dama ko def école Ivy League laa ko bëgg a def moom building administratif bi mu jàkkaar lool mu nekk symbole pour le reste du monde. léegi euh, le gouvernement. Euh, gouvernement bi président wax na ñoom ñoo ñu dem jàmm ñaajo seen ministère yaa ngi mais ñoom ca bëgg Dakar que président bi sax mi ngi ne lu ciy jiitu damay dëkk ci àll bi. ñu ngi ak boo xam ne sénégal yi xamuñ sax existé na ma nga fay yàqu foofu laay dëkk bu ko defee toll dëkk yooyu yëpp bi bi lay inspiré de dafa am la même nomenclature waaw mais fii du euh, bi dafa am ay ay ay ay ay résidence euh, secondaire voilà dëkk mën nañ tabaxal yeneen la maison blanche elle est donc pour yow c'est une histoire bi dafa waaw histoire bi ba tey mi ngi fii moo tax histoire man ma bëgg ko soppi parce que histoire bi dafa mitigé pour ñun histoire bi pour man bu may xool palais bi j'ai du mal am nga lu tax. Hmm. dañ ci toroxal suñu maam yi ñoom Cheikh ñoom Cheikh Amadou Bamba suñu maam yi la ñuy toroxal leen di leen yóbbu bitim réew suñu maam yi ku wax ñu jàpp tëj rey Lat ñu rey ko. mais con gouverneur yooyu c'est symbolique attention li may wax. ni ah con ragal naa ragal naa boo jëlee réew mi. waaw juróomi at yi dina passé doo def dara. dina lan. juróomi at da ngay toog xam nga léegi mandat bi 5 ans a amatul yokk amatul wàññi. waaw ah, baax na. ragal naa ne. doo def dara. lu tax. mais li ngay wax nii yëpp c'est pas c'est pas c'est pas je ne dis pas que c'est pas possible. donc impossible n'est pas impossible n'est pas impossible n'est mais mais je veux dire vous êtes vous êtes dans l'offensive de charme vous êtes dans le populisme quoi. pour yow l c'est oui vous êtes dans le populisme c'est-à-dire c'est-à-dire man. waaw. Sénégal ko li nga wax ci prison yi c'est excellent. mais lu tax nga ne lii kon populisme la. ah ko teg yow. xam nga ñëw. Hmm. un président de la république. Ouais. comme le président des États-Unis comme le président. bàyyi États-Unis wax ci Sénégal nee man bëgguma nekk États-Unis bëgguma nekk France. xam nga gouvernement. waaw kenn mënu ko effacer. wala da ngay gouvernement waxuma ko effacer lu tax ñu koy effacer. président dina am fu muy recevoir. mais mën na recevoir ci palais bi nekk boobu ngeen. dina am yow wax décentralisation ci réew mais mais stratégiquement mais pourquoi. le palais ne peut pas être à Popenguine. mais pourquoi parce que da ngeen a gëm ne depuis indépendance lépp Dakar la war a nekk. non pas lépp Dakar la nekk. donc pourquoi. mais Dakar bu nekkee capitale le président dafa war a am un symbole de représentation dans la capitale. et loolu du priorité du priorité pour yow. du priorité attention. du priorité pour yow parce que yaa ngi Dakar fii tout va bien. du priorité non non non du priorité pour yow. laa te du priorité ci yi xam nga lu tax dara doxut. parce que tout est dans nos villes kenn du décentralisé ñaata milliards lañ def jam ñaajo benn ministre du nangoo dem ñu ci bëri dañuy xëy ut appartement bu taxaw fii di recevoir nit ñi mais naa am na ministre bu recevoir boo mais ñu ci bëri tey bu président bi toxoon ñëpp tox par exemple bu nekkoon tey Popenguine mboolem ville yu nekk côté Popenguine yëpp dañ ko tabax décentralisation carrément lay nekk. je suis d'accord avec toi. voilà mais cest dire am na loo xam foog leader bi jëfee ko. I want to lead by example. bu ñu paree da nga ne ma secondaire maison secondaire ma def ko ci tool yi kër goo xam ne ma ko def ci tool yi comme ni ma dëkkee ci tool yi ku ma soxla fekk ma ci tool yi mu nekk symbolique ñu def un Sénégal boo xam ne Sénégal baykat la ñuy nekk liggéeykat.